non non <laughs> man nee naa à la base man man navigation aérienne laa jàkk Air France 718 Arcade for take off. loolu jàkk <laughs> mais mais li am. mais li am mooy est que Sénégal mën nañ fi wax lépp. ba mu des euh, contester suñ processus électoral. ah bi passé non non xaaral mën na am ay problème oh, li nga wax nii. monsieur ministre bi passé ci ci ci ay primo votant ak ay affaires yooyu désaccords yooyu mën na am. mais pour sàcc élection gagné non quand nañ jàpp ni que ku ci nekk bulletin yi nga am. ci urne ba ay sénégalais ñoo dugg voté la ko. processus bi kenn mënu ko biaiser ci pourcentage boo xam ni dina tax nit gagné ci tul nekk. mais si on empêche aussi. bu ñu empêché primo euh, léegi li mu wax li mu wax ci certificat de résidence yi. l'administration est en train de contourner sax le ministre de l'Intérieur va demander au gouverneur par ricochet au préfet au sous-préfet de prendre leurs responsabilités pour que bu amee ay divergence ki dëkkul ci gox bi nag munu fa am certificat de résidence. tout à fait xam nga dëkkoo Grand Yoff mhm. dëkkoo Grand Dakar. Mhm. toog ba mu neex la rek nga dem bëgg créer ay problème Jean Baptiste. ni bëgg fa ut certificat de résidence bëgg ut ki bëgg ut ki wala nga ñëw Mambay ñëw Ngor. dëkkoo Ngor voté woo Ngor yow yaa fële nga doon régler say problème ñëw après bëgg fa. ut kii mais monsieur si si chef de quartier lay commencé malheureusement. non non non ñu la joxee certificat de domicile je jox ma domiciliation jox la ko. Hmm. mais déjà la procédure est entamée. oui oui oui. non foofu mën nañu d'accord naa mais dama ni quand même euh, priver quelqu'un qui a un droit c'est pas normal. c'est vrai. mais aussi donner à quelqu'un qui n'en a pas le droit. c'est pas normal non c'est pas normal non plus. c'est là où il y a le problème, hein. donc je hmm. pense que l'autorité administrative le ministre de l'Intérieur. devrait instruire les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets à prendre leurs responsabilités et à être par rapport à ce processus. Mmh. Ne plus donner au maire le monopole mmh. de délivrer ça. C'était une des recommandations de la mission d'audit. Ouais. D'ailleurs, la mission voulait que maire yi ci boppam tax ñu saisir leen jox ko police ak la préfecture. Apparemment loolu la wax ni loolu la ñu def léegi. Loolu la ñu war a def. Mais weesoogul xam nga parce que les maires peuvent être juste et Mais mais même buñ ko deful loolu sax mhm. loolu quand même mënul impacter. Mhm. fichier bi. day discréditer élection yi dëgg la dëgg la. tamit loolu mooy. Euh, désolé il ah. euh, doon wax léegi je crois que doon dund mais euh, finalement à Dakar. Mhm. bu fekkee ku nekk bu gagné na goxam. Mhm. il ya des chances que majorité bi gagné Dakar ok. Mhm. mais on se rend compte que Parcelles Assainies. je crois que leerul pour ngeen gagné ko. parce que tout simplement Moussa Sy moom fa nekk. Amadou Ba ma nga fa on ne voit pas encore un link entre Moussa Sy et pour ñu am une coalition de feu pour mën a gagner. en effet à Grand Yoff. aussi seen victoire leerul. te c'est les deux grandes localités yi nga xam ni mais ku si ku ko gañewul mënoo am chance peut-être daal di gagner Dakar. Euh, non c'est que c'est-à-dire élection Dakar dafa changer. Mhm. dootul processus su kii day yónnee ay délégués kii yónnee ay délégués léegi suffrage direct la. waaw ça c'est un fait c'est vrai à dire mille voix wu mille voix wu Grand Yoff ak mille voix wu Ngor ñoo yem ak deux mille voix ak mille voix wu Wakaam ñoo yem ku raw ku ëppale ci département bi hmm. tête de boobu mooy nekk maire dootul ay yónni conseiller hmm. tëj ay conseiller dootul en fait le processus euh, le mode d'élection a radicalement hmm. changé c'est-à-dire léegi mën nañ xam kan mooy nekk maire bi bu bu 18 heures xam nañ kan mooy nekk maire Dakar dinañ xam ni ma mbay la bu fekkee ni que non c'est vrai non bon <laughs> mais mais man kay bu ma nekkee candidat bi mouvance bi jàppale ma synergie bi ñuy créé jàppale ma mais du du du du du du du gaaw sonko yi amateurs yi. y a des <laughs> lépp ay conditions la mais yàlla baax na. Mm-hmm. c'est-à-dire kuy xeex di nga rafet njot kuy mm-hmm. xëccoo di nga rafet njot. li ngay njëkkee mooy ñaan yàlla suñu borom. Mm-hmm. d'abord jox la après jàllale ko ci ñuy tànn. nga laaj confiance mais tamit ci li nga leen di proposé. parce que tamit ñun dinañ wax waa Dakar. fan lañ leen di jëlee fan lañ leen di yóbbu ak nan lañ koy defee bon contexte feebar bi moo tax. mais sinon qu'est-ce qui a changé à Dakar. Euh, euh, euh, de manière prioritaire quoi trois trois priorités pour changer euh, bu bu ma bu ma ko commencé léegi ñi ma àndal dañ may mere parce que boobu ba léegi ngi liggéey ñi ngi xool ci ban format lañ koy defee on va vous dinañ contacter. Mhm. mais d'ici fin août incha allah on va proposer un programme. Mhm. bon contexte su feebar bi moo tax. mais ñi ngi jéem a xool. Mhm. nan lañ koy agencé créer ko organiser ko d'accord mais pour présenter waa Dakar mais di rafet njort ni que dinañ def suñu kéemtulaay kattan képp ku ñu xalaat ni que dina mën na ci jàpp dinañ dem seeti ko